artistes yu bëri nekk ci commune bu Grand Yoff ñoom ñoo soobu ci xeex bu ñeel mbëkk mi ñu fas ne amal xeex bi nag jaarale ko ci domaine bi nga xam ne ci la ñuy yëngu loolu moo waral ñu amala ab exposition. carrément suñu morom ñu ngi génn dëkk bi di dem yeneen dëkk di ko jaaral ci voie yoo xam ne du voie yu légal et que voie yu dangereux la et ñu jàpp ne ñun par rapport ak ci li ñuy yëngu muy aar bi war nañ ci mën a sensibiliser. jeunes yi pour mën a ñu mën a toog mais fee la bi nga xamante ni tey jii mu ngi jur ay conséquences yu catastrophiques si biir dëkk bi mais mënaguñ nga xam léegi peut-être dans l'avenir parce que jeunes yu bëri tey jii ñoo ngi bàyyi seen activité fii dem di wuti loo xamante ni xamuñu lu mu doon. exposition bi nag dafa nekk benn message de sensibilisation jaarale ko ci ay tableau d'art ñi nga xam ne moom la ñuy defar yooyu de artistes dañoo jokk ngir ñax ñi nga xam ne dañoo am yéene dem ci li di mbëkk mi. exposition bi ndax suñu kàddu ñu ko waxee lu dul ci suñu ay œuvre moo tax ñu invité ay suñu ay moroomu artistes yi nekk suñu ginnaaw yëpp bu ñu def benn exposition collective sensibiliser waale jeunes yi ci wàllu immigration clandestine lancer waale message aussi. mën nga dem ñaax fa sa bakkan te chance pour ñaax sa bakkan moo fuuf ko chance pour yegg moo tax ñu organiser activité bi via Fallou bi bi am xalaat bi. pour mën leen sensibiliser. ëpp nañ fukki artiste bokk ci boobu boobule fonderie nga xam ne artist bu nekk dina yëngu ci fànn bi mu mënee. mais soo gisee mu gën a participer si euh, activité bii nii nii nga xam ne exposition la euh, c'est parce que ñun ñoo ngi siy gis suñu bopp. par rapport yow euh, muy man muy yow muy keneen a keneen am na koo xam wala koo xam ku xam. ñoo xam ne jël nañ gaal yi wala ñu jël benn yoonu suuf boo xam ne pour dem à l'extérieur. andiwaat encore lu ñuy naan encore de de euh, l'espoir et l'espoir boo koy indi c'est en toi d'abord yow mi sa personnalité. yow mi sa personnalité bu ñu amatul confiance ci yow rek jeunes yi dañuy daw loolu mooy problème parce que yaay njiit ji boo boo nekkee njiit boo wonee le bon exemple et que xale yi nga jox leen espoir ni que mën nañ toog fii te mën nañ développer fii or ko te wonoo leen leneen je pense que dañuy toog ñu dem feneen. yooyu les si nekk sa Grand Yoff am yaakaar ne seen message bi dana jàll ci loolu ñuy woo bonne volonté ñi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi ñu dugal seen loxo ci bile exposition nga xam ne dinañ ko amal ci diiru juróomi fan.